ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وازدهاء هل يا ربنا وسلم على ما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف بأنقار ولد المصطفى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 bu jotaan muy ndokkeel boppam weer woowu ci lañu jëm tey ñi bugg ci yóbbal luñ ci am ci ay minute doy nañu ñiy jàkkaarloo koo xam ne kenn du wax lu tax ñi tàllal ko micro pour mu wax ci Maulana Cheikh al Islam Al Hadj ak gàmm gi mu di Seyxa yaa ne na lépp lu xadara bi di liggéey empreinte feeñ na sa preuve bi mooy li ñu nekk nii te war koo intégré ci ay fan yu néew mu di fi ñuy gàmm te mu bokk ci barab yu gën a loon Mawlana Cheikh al-Islam Cheikha ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ñu am mbégte loolu dara laat la ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi lay déglu. waa alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yontam bu tedd bi salaa salaam di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu di wax ne. ñu ngi nuyu sang bi nga xam ne mu ngi teew ci jotaay bi muy Seyda Yaa Roqi Nges nekk sëtu Mawlana Cheikh Ibrahim Nges Baay radiyallaahu taala anhu mm, maa ngi koy nuyu euh, te di ko ziyaare te di ko ñaan digal Nges alhamdulilah di ziyaare tam njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim Fall mm-hmm. muy Seyda Yaa Awa Fall mële nekk moom itam dërëti Mawlana Cheikh Ibrahima Fall nekk euh, euh, doomi suma maam Mawlana Cheikh Ibrahima Fall moom itam ñëw teewee si jotaay bi yàlla boole ko ci ak sang yi nga xam ne ñoo toog ci jotaay bi yëpp muy sang yu góor yi ak sang yi jigéen yëpp ak yéen yi nga xam ne yéen laa bokkal pay bi nga nekk njobootu pay bi maa ngi leen di ndokkeel di leen ziare bu baax di ziare la yow Cheikh Basir di ziare euh, Ababacar di siyaare eh, gay président kii bi maanaam seen eh, kilifa bi seen directeur bi Ibrahima Gaye di siyaare ña nga xam ne bii ñoom ngeen fa bàyyi ñëpp te di leen ndokkeel di siyaare tam sama doom yi nga xam ne ñoo fi teew nii eh, di leen wax ne bisimilah ci seen kër ndax kër gi kër Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu la kër mboolem njabootu Baay la kër mboolem taaliba yi la tam di wax ne bisimilah dal leen ci jàmm di wax ne maa ngi nuyu président yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi muy maam Saliou mi nga xam ne mooy président daayira yi nekk Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi ak Seyda Mariama Yaapa moom itam nga xam ne moo nekk président ñi nekk moom itam Sénégal ak ñi nekk diaspora bi ci jigéen di nuyu ñu taalibe yi nekk Sénégal ak ñu nekk ci jaspara bi yëpp ak fu ñu mën a nekk ak Gambie yëpp maa ngi di nuyu di nuyu pay bi waaye di jiital nag ci nuyu pay bi muy sama papa xalifatu am muy papa Cheikh Mahi Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci suñ kanam te may ko tawféex mm, di nuyu tam sama papa imaamu akbar imaam Cheikh Tidiane Cissé sama papa sama waajur sama xarit maa ngi koy nuyu te di ko ziare tam di ñaan yàlla mooy tam yàlla yàggal ko ci suñ kanam di nuyu porte parole bi tam Cheikh Mahi Cissé moom itam sama sëriñ sama xaritam aussi di siyaare mboolem njabootu Maolana Cheikh Ibrahim Niass góor ak jigéen mag ak ndaw parce que danaay wax ne baay amul sax ay ndaw ndax Baye njabootam yëpp ay mag lañ njabootam yëpp ay wëliwu lañ tam ndax baay moo ñaan yàlla ba yàlla may ko ko moo tax Baye amut gune Baye njabootam yëpp ay mag lañ ay wëliwu lañ tam kon maa ngi siyaare mboolem mu xaddam yi àndoon ak Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu muy sama maam Mawlana Cheikh Ibrahima Fall njabootam yëpp maa ngi leen di ziare muy Baye Fall mi nekk fii Medina ak baay Fall mi nekk Kossi ak njaboot gu góor gi ak njaboot gu jigéen gi. di ziare mboole njabootu sama maam Seydou Aliou Cissé Cheikh Ousmane Ndiaye Cheikh Omar Touré Serigne Baye Mbaye Niass ak mboolem muqaddam bu àndoon ak maam Baye ak maam Malle Thiam yëpp maa ngi ziare seen njaboot di ziare xadara bi yëpp di wax ne bisimilah ci seen xadara. jërëjëf Seyda euh, nuyoo bi am na solo euh, xam naa tey du ñëw ci cosaanu Seyda fan la nangam nangam waaye Seyda li bëggoon a xam rek mooy lan moo ko booleeg xadaratul Ibrahim ya bi sama sëriñ dama bokk ci xadara bi euh, Baay radiyallahu taalaan fu sama sëriñ la sama waajur la waaye daf ma jur daf ma jur xaqan daf ma daf ma meññ ba pare jur ma ba pare ma nekk taalibeem ma ñëw nag njabootam yëpp uuf ma tam ñëpp njabootu baay yëpp ma uuf ni ko dalee ci xalifa bi ba ci sama papa imam ñëpp ma uuf ñëpp ma uuf góor jigéen parce que dama bokk ci ñoom seen taalibe ba pare ñi jur ma waaw ba ma booleeg ñoom waaw. gis naa ne li ko commencé buñ na weer na ba bañ ñi woree da indi. ay ñam di ko joxe foofu loolu ndax danga ci am ndigal wala yow da ko def en tant rek pour xidmal xadra bi waa dama cee am ndigal cee am ndigalu sama sëriñ ndax taalibe bala mu jëf dafay am ndigalu sëriñam nit ki lu lépp lu nit def ren ba déwén rek mu continuer daf ci am ndigal dama cee am ndigal waaw dama ci am ndigal mhm. kooku dafa nekk sama maam moom sama maam la ba pare mu yar ma euh, yar bi ma yar itam mu yar ma ci Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiyallahu taala anhu euh, bëggloo ma baay euh, yëngatoom ak dalam yëpp baay la woon te ba léegi baay la looloo tax man mi nga xam ne bii moo ma yar ci baay rek la ma yar yarul ma ci dara lu dul baay li ñu boole nag bari na takk bi bari na ndax moo ma yar ci yàlla. moo ma yar maanaam bu ma koy wax moo ma yar ci yàlla xam nga loolu bu ma ne moo ma yar ci yàlla rek mooy moo ma yar moo nekk itam sama bunt ci pay bi Medina moo nekk sama bunt ci pay bi bi mu nekkee sama bunt ci pay bi itam euh, dafa delloowaat kii ci ndaal yi maanaam battu bi ci ndaa bi parce que sama maam dama mës a dem siyaara ji ko àjjuma benn suuru àjjuma sama magu yaay yóbbu ma ci suma maam ci kër sama maam pii ci Medina Baye sama maam Ibra Fall parce que sama maam Ibra Fall dafa bëggoon Baye bëgg Medina ba nga xam ne bii par àjjuma alxames la doon fanaan si jullee fi àjjuma bi ma biñ jullee àjjuma rek suma suma suma sama mag yaay yóbbu ma ci sama maa Ibra Fall mu ne ma nañ dem ma yóbbu tey daal danaa la yóbbu ci góor gi tey ñu ànd mu yóbbu ñu dem sukk mu ne ko sëriñ bi kii daf laa bëgg bëgg bëgg bëgg ba nga xam ne bii dafa ëpp mu wax ko maam Ibra Fall boobu sama maam ngi ci xaal bu tàng doom yi nga xam ne moom ñoom la tuddee baay ñu ngi koy upp ndax xaal bu tàng ci lalam bi mu ngi ñaq tooy xib sama maam dal di sigg xool ma ba mu yàgg mu ne gis nga kii dénk naa ko baay dénk naa ko baay dénk naa ko baay dénk naa ko baay ba muy ñetti yoon mu dal di tëddaat xam nga kon mooy waaw loolu moo ñu takke sama maam la <laughs> waa xam nga moom dafa dafa dafa nekkoon taalibe baay boo xam ne dafa jeex ci baay moom bëggutoon dara lu dul baay sama maam tuddee na doom yi baay baay baay ba doom yi jigéen yi juddu mu bëgg leen a tuddee baay mag ñépp daje ne ko de sëriñ bi eh, góor ñi kay tuddee leen baay jigéen ñi nga tuddee leen doom yi baay yu jigéen yi moo tax mu am ay yaa roqi waaw yaata baay maanaam yooyu àndam ak baay nag loolu ci ësal la waaw du fii du abat ci ësal lañ àndee xam nga ña ànd ca ësal ci abat duñ neex a séparé te dafa nekkoon jëmm joo xam ne taarixam yëpp baay comme ni baay doon defee taarix ci yontu bi sallallahu alayhi wasallam noonu la sama maa Ibra Fall doon defee taarix ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baay radiyallahu anhu man sukk naa ci kanam sama maam muy mu mu mu mu toog ci suuf sol yére yu weex tàll sol gaa yu weex tàll ne ma lenn rek moo ma metti man Ibra Fall mooy li ma maam Baye Nges njëkk a dem mooy li ma Baye njëkk a dem mu ne xellante kon man maa waroon a njëkk a dem Baye su maam bi mu ko waxee rek dafa dugg ci sànq bi rek dal na nëbbu boppam ci sànq bi ma dal di jóg ñibi dafa nekk taalibe bu dëggu ci sëriñam te joxoon cër nag mboolem muqaddam bu mu fekkoon ci baay boo ne sëriñ Baye Mbaye Nges mu ne kooku sama sëriñ la boo de Seydou Aliou Cissé mu ne kooku sama sëriñ la koo wax ci muqaddam yi rek maam jox na la cër seetee la jëmmi Maolana Cheikh Ibrahima Nges Baye radiyallaahu taala mos na ma wax ne ma man Ibra Fall suma maam nag lépp lu ma ciy wax nekkul lu kaset bu ma déglu wala luñ ma bind tegal ma dama toog sama maam di wax ci sama nopp sama maam wax na ma ne jamono jot na man Ibra Fall la taxoon mu wax jooju ñëw nag dama doon ko siyaare ji siyaare léeg ma siyaare ko rek mu ne ma tey de maa ngi ñibbi ko si ma ne ko ah maam yow da ngaa war a ñëw toog Medina yow boo ñëwee Medina rek Medina day xumb neex waaye boo demee rek day wéet sama maam noppi ba mu yàgg mu daal di muuñ ne ma xam nga lu tax. bu ma nekkee Medina ba mu yàgg ma dem Kossy maanaam mu ne ma bàyyi moo ma taaj Kossy mu ne ma dafa am benn jëmmi jamono bàyyi génnee néegam rek jël ci fasam yi benn rek war ko rek génn këram di dem maitam ba ma ko gisee may dem rek ma jël setala gi def ci ndox daw topp baay mu ne bàyyi ngi mu ne bàyyi ngi dox ci digg manding mi maanaam ci digg àll bi mais jéegooy fasi bàyyi mu ne man Ibra Fall mooy suma daw ba ñaq mu ne may daw baay di jeego rek ci fas bi baay kese ci fas bi ak man Ibra Fall téye sa tala ci gannaaw baay mu ne maa ngi xelu rek mais munu ma fexe ba jot fas bi su ma maa mu ne may daw di daw di daw ba ci digg àll bi mu ne baay dem ba mu yàgg rek mu taxaw ne waa ko kan la ku nekk ci suma gannaaw suma maam ne ko ah nges kii de sa taalibe bi la mu ne ko ban taalibe mu ne ko sa taalibe Ibra Fall sa taalibe Ibra Fall mu ne bàyyi na ko Ibra Fall mu ne ko nges mu ne ko Ibra Fall mu ne ko nges mu ne ko Ibra mu ne ko nges ba muy yoon mu ne ko Ibra Fall dëppal ñaari borom kër duñ tukki dëppal nga dellu Koosi ñaari borom kër duñ tukki sama maay Ibra Fall mu ne loolu moo tax ma toog Koosi mu ne eh, koor kori jëlee tabaski jëlee korite yëpp Koosi laa koy defee mu ne ma loolu moo ma taaj Koosi mu ne ma nag waaye terewut danaa ñëw bisu alxemes jullee fi jumaa xadara siyaare ma baay siyaare mboolem njabootu baay gi delluwaat sama nekk moo tax li ko takki ak baay loolu ca ësal la booba abat jotagut ah wa Ibrahima wa Ibrahima. man daal xam naa ne maam Ibra Fall moom taalibe baay la woon boo xam ne bii ne dafa dëgg ci wàllu taalibeem. dafa jëloon boppam yëpp jébal ko baay moom amutoon programme dem nañ ba ci euh, siyaare bu jotaan dafay wax ne indi leen ci li ngeen am man ma jël li ma am yëpp boolenteeg li ngeen am dem yóbbul ko baay xam nga foofu maam dafa dafa dafa dafa dundal taalibe ci maqaama yoo xam ne mooy boo amee sa dërëm bi danga koy boole ki nga xam ne bii du jeexal te ko ko mooy baay ah? dafa jàngale ci wàllu taalibe moo tax baay mu ne sées benn la Baye toog na ci sëriñ amatut ku dul Baye mooy sëriñ seesu sëriñ tam benn la Baye ci toog mais nag place yi taalibe yaatu na ku ñëw man mën ngay toog moo tax sama maam dafay yare ci wàllu yàlla moom léppam yar la dafa am benn taalibe bu jóge kon pii di ko siyaare ji ci Kossy bi mu demee ba ba wàcc tali bi paan mu jàdd ci kër googu ñuy wax Touba Sanoxo ñu may ko ndox mu naan ba pare ñu laaj ko fan nga jëm mu ne Kossy laa jëm ñu ne ko looy wuti Kossy mu ne damay siyaare ji Baye Sèvres Fall hmm? sëriñ ba ne ko yaa ngi siyaare ko jafee siyaare ndaxte loo yóbbu ci yar bu fekkee benn la moom danga nga fekk téeméer ci moom ci yar moo tax Baye maam Ibra Fall léppam yar la woon ci Mawlana Cheikh Ibrahima xoolal ma Baye doomi Baye sëtu Baye sët sëtaatu baay moom gisul kenn kudut baay respecté pays bi jox ko cër ba nga xam ne bii bu ne cëpp gaaras ñooro sama maam summi na dàll yi dootu solati dàll li wër ma dina déedéet kon dafa jàngale wàllu taalibe ci baay jàngale tam xidma ci baay kooku nag mooy sama sëriñ ci Mawlana Cheikh baay mooy sama bunt ci baay jërëjëf Seyxa xam naa fi ñuy jeexale rek euh, du du du sori euh, sànq da nga ko wax mooy dal ak Ibra Fall dama ko seetlu parce que nag wama shahidnaa illaa bimaa alim na moo di ne dañu gis ne euh, ñi nga xam ne dañoo jokk ci Seyxa doo leen dégg ci ay mbóosóor wala ci loo xam ne daal day déranger xadara bi loolu loolu yar bi la wala fañ ko jëlee ci maa Ibra Fall la waa xam nga dafa am benn góor gu ma dégg taarixam mu daan wax naan xuuste ca kele jiite bul di jëyoog moom taaliba day roy ci sëriñam kon buñ royee ci sama maam danañ xam fi ñuy teg suñ tànk ci pay bi parce que pay bi lu jar a respecté la suuf si pay bi ganaar gu ciy dox sax dañ ko war a respecté soo maam loolu la doon dund ci baay ak ci mboolem njabootu baay waaw looloo waral ñoom it naka si noonu xuuste kala jiita daal mm-hmm. bul di jiyoog moom taalibe day roy ci sëriñam képp taalibe sax waxuma la taalibe yi nga xam ne bii ñoo jokk ci kër sama maam Mawlana Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. waaye mboolem kuy taalibe baay te di tuddoo taalibe baay rek mm-hmm. war nga am ëdëb war nga am yar war nga jox pay bi cër war nga jox njabootu pay bi cër ndaxte nag fii kuñ fii sukkale di la raamal du maami kenn bàyyi la kenn sa maam liggéeyut luñ lay sukkalee karaamale kuñ ciy jox cër tey sukk ci sa kanam nuyu la yëkkati addee jox la sàkkaa ñi di la xitmaan lu toll ni bën ma a puso borom kaala gii la waaye du kenn moom nag dafa bëgg yonte bi salaa salaam moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ndax li tax nag mu bëgg ko dafa doon yonte bi salaa salaam nag doon Cheikh Tidiane Sarif radiyallahu taala nit ku lu mu doon daf koy bëgg ku nekk day bëgg boppam moo tax li ma wax ci gàmmu ak wàccaay gàmmu yaakaar naa ne dugg ngeen ci ak ci tànt bi tam wax nga ci lu ngeen ma ci laay rek mën naa leen ko tontu ci jëmmi Maolana <laughs> ma ñëw foofu ma ñëw ci euh, bala ñoo Euh, conférence boo xam ne ñi ngi la ñi ngi ko jagleel daayira yi nga xam ne ñoo aju si wala ma wax ne ñi ngi la ko jagleel bu ma ne ñi ngi la ko jagleel ñi topp sa ginnaaw ci lañ ñi ngi ko jàpp le treize incha allah septembre euh, loolu maanaam parrainage boobu nga xam ne wala marrainage boobu nga xam ne moom lañ la defal defar nga koo sàkku wala ñoom ñoom ñoo jël rek euh, parfois nit danay wax ne man jël naa lii moom at bu jot maa nangu naa ne ku nekk xam na ne gàmmu financement la tey ñi jël conférence boobu teg ko sa loxo jagleel la ko loolu da nga koo sàkku wala ñoom ñoo ko sàkku. wala walaay seen mbaax la xam nga taalibe mënut a sàkku. kuñ sàkk mënoo sàkku. seen mbaax la seen mbaax la ñi xool benn e, e, benn bés ñu ne nañ ko may suñ taalibe bu ndaw bii seen mbaax la te këru gan gii ñu koy defee hmm. kere bañ koy fondement xalifa bi daf ma oo ne ma jël naa porose bi teg ko ci sa loxo sànce bi hmm. muy këru gan gi hmm. voilà ñu ne ci ne ci ne ci ba mu pare mu oowatal ma boppam bi mu pare mu ooma guddi ne ma yaa ngi nax ni ñi de yaa ngi nax nit ñi moom papa Cheikh Tidiane Niass yal na yàlla yokk leeram ngees Goumba Abdoulaye waaw ci seen mbaax nag ci lañ ma mayee conférence bi ñi ne ma nag duñ ko def fenn ci biti ay ay ngelaw yooyu ci ci Kër Gane la ko defaree chaque année mu may ma ko ñu di ko def di ko def ba papa maay ñëw gën kaa yaatal gën kaa yokk ak imaam ti Tidiane sama papa. ak ñi njabootu baay gi yëpp nag ñëpp ci d'accord parce que njabootu baay gi duñ ay ñaar du ñett kenn la baay la baay njabootam yëpp baay la amul différence amul frontière. sëtu baay baay la doomu baay baay la lépp baay baay la ñoom ñoo ci juboo déggoo ci d'accord ji ne kii suñ jaamab yàlla la boo xam ne bii ne nañ ko may bés bii ñu joboote ma nag ñoom yëpp ñoo koy def ñoo yore responsabilité bi yëpp nam rafetee nam baaxee nuñ koy defee yëpp dama leen di déglu rek te buñ paree rek roho yóbbu gërëm waaye man rus naa sax ne sàkku naa dara ci pays bi amul dara lu ma dem ne ma leen ma ko rus naa sàkku parce que kuy sàkk doo sàkku taalibe amul dara ci boppam ku du sëriñam sëriñam moo war a programmer ci moom man tukki sax bala ma koy def damaa am ndigal ci ñoom da ba pare soog a tukki man du ma génn Sénégal te aw ma seen ndigal suma lépp ci ndigal laa koy defee mosumaay sukk ci seen kanam ne la sàkku xanaa sukk rek ñu xoolee rek ñu ñaanal ma rek ma jógaat dem mu mat ma sëkk nag moo tax lépp ñoom ñoo ko baax ñoo ma ko dimbalee rek baaxee ma ko xam ne eh, ñoom ñoo a jur ñoom a jaboote ñoo ma moom ñoom ma lépp ñoo ko moom loolu la demee Cheikh Basir gis nga pay bii baay moo koy rëgleel boppam baay du xaar état parce que baay moo fal état baay mooy état koo xam ne yow état nga kay yow doo xaar état fu eh, amut eh, ah ñes borom jamono mooy dimbale état waaye état du ko dimbale ah yii yëpp dafay rafet incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ci barka baay gis nga eh, taalibe yi nañ mobilisé maanaam nañ xam ne baay dafa fonk guddi gàmmu ñëpp nañ takkaayu nañ génn seen néeg yi defar ko ba mu baax dalal ci gan ñi ñaareel bi dundale bi na gën a bari na gën a neex na gën a yaatu na gën a am sécurité waaye na sell nañ dimbale jaami yàlla yi dimbale jaami yàlla yi amul frontière amut gan amul dëkk gis nga gàmm ñëpp ci bokk yow ci nga bokk Cheikh Bassir mi ci la bokk ñëppay am gan parce que weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bàyyi def ko fonk Baye dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi danaa ci nettali rek ci bëgg gi mu bëgg yonent bi xam naa ne eh, eh, dana jël temps tuuti waaye ngeen jéggal ma Baye dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi benn bis mu dem siyaare ji yonent bi sallallahu ci Médine li ma wax léegi rek nit ki lum lum doon da koy doon te bu ko doonee rek da koy bëgg bi mu demee rek xaal bi tàng lool ci raw di yonent bi sallallahu alayhi waaye mi ngi ànd kenn ci njabootam bàyyi njabootam daf leen a yar ci mbaax dañ namp baax donn baax nekk ci dereti ku baax di ko xool rek xam xaal bi bàyyi toll mu jël musuwaar bu sell defal ni bàyyi kanam gi maanaam fomp ñaq bi ñaq bi dal di ko ne eh ñes addina bi yëpp xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi rek nga bëgg bàyyi dal di daal noppi ñu ñëw ba ci kër ba ci ba bi ci Médine de ñu ñëw ba ci hôtel bi fekk Baye jaar na Jidda ñu jox ko addiya addiya bu bari Baye jël addiya boobu xam nga ne lu ñu ëmb ci lu mel ni musóor bari na maanaam ci bariwaay rek mu ñëw jël addiya boobu seet kenn ci njabootam jox ko ko njaboot gi xam naa tur ba xam naa léppam mu yëkkati addiya na ko am njabootam boobu téye addiya bi ndax bariwaay mu ne ko jëlal maa la ko jox. njabootam gi noppi mu ne ko dooma laaj lu tax ma jox la ko njabootam noppi rek sëgg bàyyi njabootam dañ bari kersa mu sëgg ba mu yàgg mu ne ko bàyyi na ko xam nga lu tax ma jox la ko seede gi nga seede sama bëgg yontu bi salaa salaam ci kanam yontu bi salaa salaam moo tax ma jox la xaalis ala moo la tax ma jox la lii xam nga kooku kenn kenn du mel ni moom ci bëgg yontu bi salaa salaam moo tax bàyyi moom moom gàmmo moom moom gàmmowaat parce que lépp ci boppam la koy def ci la koy delloowaatee ah kon looloo tax gàmmo bàyyi fonk gàmmo daf ci daan dundale bàyyi weeru gàmmo def ci daan ree euh, di ci joxe lu am joxe ci daf ci daan dundale du sonn du sonn ci ci jaami yàlla yi du sonn ci waxtu yi du sonn ci joxe bi du sonn ci dara jox ñëpp seen cër ndax bëgg gum bëgg yonent bi salaam walaay ngees boo taxawee ci mbiram gem mbirinaam gi rek xam ne moo doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xan ci lu amul ñaari xel waaw kooku ku am ku mel ni baay noo mar a mel dangaa war a baax dangaa war a yaa dangaa war a jub dangaa war a ragal yàlla mais danga war am ëttam maanaam dangaa war a yaru dangaa war a fonk njabootu baay gi fonk pay baay bi fonk képp kuy nokkee ci baay pay baay bi te di fi ñëw di ñëw gàmm yépp war nañ leen a taxawu buñ xaar état ah état lim responsabilité rek dafa rëy ñëpp a ko yaakaar bu ko defee nag ki nga xam ne bi yow am na koo xam ne moom moom programme bi yow moom nga yaakaar njabootu Baye Gueye nañ foofu dépassé nañ foofu ah walaay ngees ndax ah passé wuñ foofu ah yëpp a ngi bari ah lan lañ xaar lan lañ luñ xaar kan moo am lu dul jeex bàyyi rek moo am ko jeex parce que moom moo jubóog boromam waaye liggéeyal bàyyi te doo wàcc rek parce que bàyyi wàccut ci ñun ah bàyyi wàccut ci ñun ah lii yëpp bàyyi la kenn defu ci dara lépp lu ci nit mën a def buy milliards ay milliards yu milliards bàyyi ko def ci ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii mais kenn amu ci dara du góorgóorlu kenn de ma ne ku la ñaagal moo la cere xam nga loolu maanaam ki tibb ci bool bi jox la te bool bi des na te xam nga ne bool bii des am na lu des ca saako ba saako ba tam am na fu mu bàyyee ko ca sàq ma kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Ba radiyallahu taala anhu ah ñu daal ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne euh, nañ gën a bëgg baay gis nga rawante baa ngi ci bëgg min ka ilay ka de baay gis nga baay mooy lépp mooy lépp jamono waxuma la état mais dafa passé état mooy jamono xam nga baay ñu ne mooy international mooy jamono moo tax mooy solution mooy jamono bi nga làmbee daj sa jëmm ji sax Mawlana Cheikh Ibrahima Baar bi taala moo ci fees dell ana mu ne ana nafsu wal afawa maraay taa ko kooku arif bu ko gëm dëggu ci doo làmbatu ndax xam nga kii def ci yow ñun defuñ ci bàyyi de bàyyi def ci ñun kan moo am dara fii ku fi am kenn amu fi dara bàyyey def bàyyey def bàyyey def bàyyi def ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi nga tànt bi li muy taaru taar bàyyi ko taaral kenn amul dara kenn mënul dara waaye nag il faut mu dimbale jaami yàlla yi ñu ci tudd rek pour ñu am ngërmandeem moo tax maa ngi gërëm mboolem ko jiite woon sànce bi di ci jiital nag euh, président Baye Ciss parce que keroog biñ ko fond bañ ko waree fondement xalif bi daf ko wax ne ko demal ci yaane na nga waxtaan ak moom ci la bokk mu ñëw dagg yitteem ànd ak kilifa yi ci na ñëw toog ci sama saal bi na ma sa papa moo wax ne nañ ñëw ci yow ak sa papa imam Cheikh ñu ne nañ ñëw ci yow ci sànc bi ci nga bokk may leen bind leen ma ci kaw maa ngi ci sànc bi feeg waxuñ na pare na du ma ba loolu bàyyi la maa ngi koy gërëm te di ko sant di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla mboolem koo xam ne yaa ngi bokk nag moom sànc bi rek di ñaanal mboolem fu taaliba Baay ne di ñaanal ñi gàmm si tam yàlla def jàmm ci avion yi euh, ci oto yi ci sareet yi ci dox yi ci lépp lu mën a door rek ñu ànd ak garante Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala ñu ñëw ci jàmm gàmm ci jàmm te ànd ak ngërëmal Baay delluwaat ci seen njoboot ci jàmm maa ngi wax na dëkk bi yëpp nañ génn seen néeg yi jox ko gan yi nañ dalal gan yi ci néeg yi jox leen ñam yu doy taral leen ndax baay dafa mënoon a teral gan rawatina weeru yont bi salaa salaam bu gan gi ñëwalee teral ko boo ko teralee rek da nga am ngërmandeel baay te baay jox na ñu luñ teralee gan de ah ah anamu lépp a ngi lépp ngi dara jeexut. magasin yëpp magasin yaa te magasin yooyu nag ñi nga sukkandiku ci magasin yàlla bi nga xam ne kun fa yëg ko nekk rek mu nekk mu ne caabi ma mooy bàyyi nga tijji rek mu tijjee ko kon nañ ñu ngi ci waajaay gàmm euh, état maa ngi leen di ñaanal na yal na yàlla dimbale leen bañ mën a dimbale doomu aadama yi maanaam jaami yàlla yi jaami yàlla yëpp a soxla ndimbal ñëpp a soxla ndimbal nag toll nañ ci digg boo xam ne ñëpp soxla ndimbal nañ dimbale jaami yàlla yi comme ñoom la yàlla jiital ci kanam jaami yàlla yi nañ dimbale jaami yàlla yi ñoom itam yàlla dimbale leen rek ah waaye ñu yal nañ am ngërmandeel baay day man di dox ci ay waawam ci ay ndigalam di moytu lum tere te di def lum santaane te déggoog pay bi déggoog njabootu pay bi yëpp nag ñu déggoog ñoom di wax ne ñu ngi gërëm ñu ngi sant yal nañ ko fekke jàmm te tal ko te ànd ak ngërëmal baay di wax ne jërëjëfe baay jërëjëfe baay jërëjëfe baay jërëjëfe baay jërëjëfe sama maam Mawlana Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë Ibrahima Diouf Bakkal Barhama fileeg ba ngay tem-tem gis na nin ki nanka sidi barahama yow ibrahima juuf du tulloo noppi fileeg ba ngay piccam fayon ceebo saab sidi barahama ne saydil wujood bi yaay ilhimaani mulkoog malakoot montor bo daw yaa may ceeb laylatul mawlidi lasi kaana lidi ne sororon bi yawmihi wazdiha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف بأنقار ولد المصطفى وهاك الهناء